Afrique Europe Amérique Asie Touba Maroc ah paré wuñ benn gox ñëpp gars yi ku lim juum ñu ngeen di jaajëfal bu baax a baax donc tey actualité bi on va parler de Mohamed Salah bi nga xam dafa tweeté envoyé benn message ci supporters yi nga xam ne mooy supporters égyptiens yi pour tey ci stade bi nan la ñu équipe nationale du Sénégal Aliou Cissé nee na moom daa xiif gaynde yi ñoom également nee na ñoom dañoo bëgg a lekk li nga xam ne mooy égyptiens yi yéen kaay bi nag di stade ñëw ne franchir l'obstacle du Caire loolu lañ def seen xët gu njëkk ak ñoom Demba Baroor kii di Kalidou Koulibaly ne je connais bien Mohamed Salah nekk également loo xam ne tey benn genre junj la Euh, record nag ak ki nga xam mooy Mor Bassine Niang wax ne donc les lions face à des pharaons revanchards Ismaïla Famara Sadio pour mettre le feu Qui nga xamné également mom mu nga xam ne Aliou suñu nee joueurs yi dañoo xif mais man mom dama xoss loolu la Aliou wax Aliou Cissé ki ne je promets Aliou c'est plutôt qui promet la victoire loolu nak Rémi Sport mom mako wax ki nga xamné moy Gaël Ondoa nek international camerounais né mom équipe moom équipe Sénégal mooy équipe bi gën a dangereuse ci Afrique yene kay bi di sunu lomb ñëw na sécurité bombardier Eumeu Sène ce dimanche Gaston Meng mobilise 1000 policiers loolu lañu wax Alioune Guèye donc prêt à signer encore euh, euh, euh, revanche sur Eumeu Sène li nga xam ne également mooy VAR bi gars yi di jaajëfal ñu répondre ci question bi hein, par rapport question bi ñu euh, Poser woon ci actualité chaque fois ni mu ko waxee rek VAR bi day tax ñuy échanger wax ci culture générale mais VAR bi tey gars dañuy fàttaliku il a beaucoup fait pour le football notamment ci journaliste yi un grand reporter koo ramener. ne tey moo nekkoon koo n'y a plus ñu doon seetaan canal ay jamono ko doon gis Thierry Girard Il nga ramené 14 ans ak nii ba un grand monsieur du football qui l'a kan la gars qui actuellement moom la ñu mu entraîneur Al Ahly n'est un grand attaquant n'est un grand attaquant du côté argentin ah joué également la Lazio de Rome un serial killer au vrai sens du terme gars qui kii NBA également gars ah, donc King nga et LeBron James mom euh, chaque match il est entre 30 points par match donc là ki King xam en statistique de Kobe Bryant Karim Abdul-Jabbar également Carmelo Anthony nga est ne beaucoup bokkoon nañ si ñu ëpp à tiré points donc joyeux anniversaire également à King ngeen donc di Jamel Belmadi qui fête aussi ses 46 ans c'est benn jour la un entraîneur également mohamed xam nga def bu rafet Algérie donc un monsieur aussi que je respecte joyeux anniversaire également à Jadon Sancho bi nga xamné aussi gars il fait ses 22 ans donc 22 ans Jason Chanso, euh, l'anglais Mais il actuellement en Angleterre par rapport également à ngeen gis de German Defoe German Defoe gagnant 22 ans de carrière dafa décidé arrêter carrière n'est nekkoon aussi parmi les meilleurs buteurs de Premier League German Defoe aussi l'un des meilleurs remplaçants Il xam de duggee day dugal lu euh, donc Premier League également image bi la a partager ak yéen ko su également suñu papa yi ki photo avec papam donc montrer également soutien bi nga xam doom da koy am ci également da am ci doomam information bi également mooy gannaaw bi nga xamné wa Barcelone seen moy mooy UNICEF fas fa doon nekk Nations Unies moy remplacer UNICEF ci li nga xamné moy ndoddu FC Barcelone benen nouvelle également suñu joueurs yi nga xamné ak supporters yi nek ci Marseille ah, Marseille signé officiellement sponsoring Caso donc déwén li ngeen commencé di gis li nga xamné donc moom mooy marque Caso ci euh, mayo li nga xamné moy Olympique de Marseille nek sponsoring moo xam ne dañu dugal bari machallah fofu ci Marseille également li mo jëm ci gars li di pour ligue des champions ah, joueurs yi nga xamné équipe yi nga xamné qualifié woon nañ huitième de finale laal ci par rapport de finale mi ngi équipe bu lañ la jox ci ba nga de finale ki ngeen également Agnelli dirigeant ci Juventus de Turin actuellement fofu nak wa contrôle financier bu Italie dañ koy top né mom dafa njuuj njaaj ci bilan bi nga xamné def nañ ko fofu non ci Juventus mom ak Pavel Nedved lañuy top mais également ki ngeen gis ni di Boris Johnson di premier ministre fofu non ci Grande-Bretagne mom actuellement néna coupe d'Europe bi buñ ko jox ben yoon yi nga xamné moy Russie dañ ko wara fokkati ci wa Russie daal di koy jox wa Ukraine ñu daal di koy organiser également ki ngeen di gis ni waxo na ne temps yii mooy kii di Eriksen dafa amone Covid rejoindre won équipe bam fim mu ne nii wér na ci équipe bam entraîné li moy première image am ni Eriksen à l'entraînement avec les Danois mais également kenen ko xamné mom Eriksen dafa dugg moom mu génn muy kii ngeen gis ni Bukayo Saka Bukayo Saka également gars yi dafa Covid 19 moo tax actuellement waa Angleterre bàyyi ko mu ci club am mu mën a faju ba wér Bukayo Saka gars yi nag li nga xam ne. moy information aussi Wa Japon bu euh, Minamino qualifié nañ coupe du monde Japon bi nga xamné ne ah booy contre 2018 euh, ñok Sénégal Sénégal dañu waroon a nak image bo xamné ne gars yi duñ ko faté ñom qualifié nañ ñoom euh, Takumi Minamino mais également ñii di Arabie Saoudite qualifié nañ ak Hervé Renard Hervé Renard pour la deuxième fois consécutive gannaaw bi mu qualifié wa Maroc ñëw na qualifié également ñi nga xamné moy donc wa Arabie Saoudite nga xamné ñom tamit dinañ demaat ren ci coupe du monde bi dina gaay mo yi barrage coupe du monde bi ah ci Europe hein. di nga match yi ni mu démé ni nak ak équipe yi gagné ak tout donc li ñu mën a wax mooy pays de Galles dem na Pologne ak Suède ñoo a daje Portugal ak Macédoine du Nord ñoo war a daje mais la la cataclysme bi gars yi mooy bii fiasco. de euh, ki nga xam ne mooy fiasco à nouveau euh, bu waa Italie la squadra a gars yi nga xamné ñom tamit dañ ñëw nërmeelu démb démb bett ñu bari bari bari bari bari gay dem tout le monde mom ñu bari dañ leen bet Macédoine du Nord mo def ni ñu fekk ci leen dóor leen lolu ñaawna ñom ñoom ñoo dóor équipe bi di Italie donc un but à 0 Italie bi nga xam Donnarumma ak Verratti joué nañ mais mënuñu won dara ñom temps yi mom boy xol dafa mel dafa mel lii nak moy gay yi Italie boppi muy qualifier coupe du monde ba légui 3 fois le jouer le participer wul coupe du monde 3 fois yi des yëpp gis nga day qualifier gagner na nak lu tolok ñent yoon la gagner coupe du monde bi ñi xam moy Italie mais malheureusement duñu bok pendant ce temps également Cristiano Ronaldo qui sourit ndax gannaaw seen absence absence yu bari ci li nga xam moy ci barrage coupe du monde bi donc ñom demb ñom ñoo daal di dóor li nga xam moy donc wa Turquie 3 buts à 1 bu Burak Yilmaz Burak Yilmaz mi nga xam ne moom moo raté woon sax penalty bo xam mo moo égalisation pendant ce temps également ñi di wa donc ñom euh, kii di ñaari Madrid la ni ngeen gis ni hein ah, donc di Gareth Bale ak ki nga xam ne Alaba Autriche donc wa Gareth Bale ñom ñoo dóor ñi nga xam ne ñuy waa Autriche bu Alaba Gareth Bale dugal ñaari but ak ben coup franc bu somptueux pendant ce temps également Suède bu Zlatan Ibrahimovic moom ñom ñoom ñoo dóor démb 1 but à 0 donc Suède moment mooy barrage ak Pologne Pologne bi nga également mauvaise nouvelle parce que Milik gars yi de dafa sur blessure hein te li nga xam cuisse gauche bi pooj bi nekk ci gauche bi ah, le le la dit di wax ne ressentir ay douleur donc moi tax boo warugul mu match bi donc nga ce sera une finale donc pendant ça également la finale barrage coupe du monde zone Afrique gis Sénégal Algérie Nigeria euh, Tunisie Maroc ak yeneen dëkk ah, Mali entre autres Égypte du di njëkkante di nga coupe du monde ba mais avant ça également mauvaise nouvelle pour le Maroc parce que c'est nouveau national bi di Abdé du joueur pépite bobu nek ci Barcelone mom dafa blessé donc Abdé instant yi dafa forfait pour premier match bi déjà au moins match aller bi ci Congo mom Abdé du ko joué euh, nga xamné nak amul qualifié wuñ du Burkina Faso demone match amical ñom nak démb Kosovo mo len dóor do bi met 5 buts à 0 gars le Kosovo de équipe bi di Burkina Faso pour man njàngaat la ndax dina tax ñu xolaat maintenir sen staff bi parce que aussi équipe bokay maintenir ñi nga xamné ne également ñoom dañuy provoquer di météri également seen wax moy Abou moom mom na wa Algérie Algérie ñoom coupe d'Afrique bu bon lañ def bëgg a ñëw fii def defar fi seen coupe du monde du fi nekké du leen bàyyi benn yoon gannaaw bi nga xamee ne waa Algérie ñoom nee nañ ñoom euh, Cameroun dañoo bëgg di leen bayyi ci terrain bobu di jappuma ki nak di Mohamed Salah Gaye dafa def ben tweet né égyptien yi ngir Yalla suba dama leen soxla stade j'ai besoin de vous au stade demain loolu Mohamed Salah daal def tweet tweet baa ngi nii ah, gis ngeen ci naa bi ni mais ngi nga mujjé nañ ko traduire ha ah, gars moy loolu mu ne j'ai besoin de vous demain donc nee dafa soxla tay ji ni supporters yi nekk ci stade du keer ngir jàppaleen parce que ñom xam nañ ni match bi du yom du yom tax na également aussi conférence de presse qui kii du du Koulibaly wax na aussi nañ xam nañ ni match bi du yom et que mom dafa am esprit de revanche ndax fi nga xam moy mooy keer fa la ñewul woon finale 2019 coupe d'Afrique bi ndax dañ fañ ko suspendre woon Aliou Cissé également néna bu fekké ne sama joueur yi ñoom dañoo xif man dama xoss dama xoss victoire kon les Lions également qui partent confiant avec un Sadio Mané bo xam moy nek donc un tête de file le leader donc ñom démb entraîné nañ sen dernier galop d'entraînement fa nga xam ne mooy sa stade du Caire xool terrain bi et tout man li ma mën a wax mooy terrain bi baax na macha allah terrain bi baax na football dina am. na gars yi wane maintenant équation moy kan la titularisé entre ki nga xam moy bounassar ak Sabali mais boy xol bu fekkee ne Aliou limu wax ci conférence de presse dafa Sabali plutôt Bouna Sarr lay les mu daal di jouer même bu fekkee né actuellement Sabali pour moi est plus en forme parce que dafa une dynamique bu baax et offensivement défensivement Sabali est très très très bien mais aussi daf ñaari pied la pied gauche pied droit donc côté droit bi mun na centrer gauche mun na centrer droite té Sabali également il est à droite beneen équation moy également il ndax Pape Gueye moy jouer wala ki nga il moy Idrissa Gana de jouer mais dafa mel aussi Idrissa Gana Gueye bo motu mom ak Cheikh Kouyaté ak Nampalys Mendy ñoy départ pap gay peut-être mën dugg ci bir match bi mais aussi en défense mom certitude moy Abdou Diallo ak ki nga xamné ne donc mooy Salou Ciss ak aussi kadidou Koulibaly ñom ak Edouard Mendy c'est confirmé ñom ken du len fa génne en tout cas match bi gay ah, tay lay ama 19h GMT lay ama 19h GMT moki yi ñu nekk Sénégal ñu nekk ci Europe n'ak 20h lay doon ci France entre autres donc match bo xamné tay match bu décisif le Sénégal dafa war a fexe ba daldi au moins dougal benn but même bu ñuy nul lañ dougal benn but benn bu ñuy nul parce que également but à l'extérieur day compter ba légui té égyptien yi gars yi dama leen xaw a ragal ci côté bobu mën nañ seen dëkk défense bu ñëwé Sénégal mo dañuy défendre pendant ce temps également ki ngeen gis ni nak donc de Luis Enrique mom selon les informations bi moy nek donc bu féké Espagne qualifie donc depuis plutôt bi moy coupe dernière coupe du monde moom laa wax sax Luis Enrique avec Espagne mom actuellement nga xamné Manchester City Manchester United moko ko bëgg jël pendant ce temps également ki di Jürgen Klopp mom 2024 le contrat bi jeex de Liverpool entourage am nag nee nañ club dafa rêvé entraîner Real de Madrid donc bu fii ak 2024 dina continuer Liverpool mais bu fa jégee peut-être mu dem ci Real de Madrid bu fekkee proposer nañ ko pendant ce temps également Real de Madrid actuellement Ancelotti mom mo fa nek ba Ancelotti c'est les informations kenn du ko dàq moom lañu maintenir à deux bu fekkee ne tamit est-ce qu'il y au Real éliminer la Ligue des Champions éliminer éliminé wuñu en tout cas Ancelotti mo fa des mom mi nga xamné actuellement Nicolas Barella bu Italie la bëgg actuellement ñëw renforcer li nga xamné mo équipe bu euh, Real de Madrid bi donc Nicolas Barella mi nga xamné ne le joueur italien

qui ci jeunes les les misé. pendant ce temps aussi à Manchester City Riyad Mahrez contrat 2023 la wara jox ba léegi prolongé wul Paris Saint-Germain mi ci ginnaawam Real Madrid mi ci ginnaawam yeneen club ñu ci ginnaawam notamment Paris Saint-Germain ko bëgg remplacer bu fekkee bëgg bok remplacer. di ngeen également du Mesut Ozil ah moom actuellement wa Besiktas dañ ko dakh ci équipe bi liko ko waral nag ñeneen ñi nan problème état de forme mom la ñeneen nak aussi ñu ngi wax lu bari mais Besiktas waxul lu leer lu tax ñu dal koy également ba Sabitzer mi nga xamné donc Nagelsmann moko ko jëlee donc fofu non ci Leipzig dal di ko indi fi ci Bayern mom nee actuellement liko euh, Nagelsmann waxon dara amu ci motax tax dafa bëgg a en tout cas les gars c'était les informations ja ngeen jëf